soir laa ko tudde donc complot la. oui te te te te dégg naan au théâtre ce soir la complot la lii complot la amul dara lu ci nekkul complot parce que gis nga bu ñu bàyyee bu ñu noppiwul ñun xam nañ lu bëri lu ñu mën a wax. comme lan. dañu dañu xam sax xam nga li ñu xam. ko pourquoi menacé waa bi nag. mais menacé wu ma. ay fem la yaa ko wax léegi de guerre bandi la de. guerre bandi la moo tax menacé wu ma xamul tax guerre bandi la. <coughs> yi nga xam yëpp boo ko tey yi nga xam yëpp boo ko waxee am na fu ñu jëm doofu egg mais nous savons na que te gis nga la madame la propriétaire bi xam na ni trois jours avant lii di am aji am na ci kër gu mu dugg def fa pratiquement trente cinq minutes li may wax je contrôle parle sous le contrôle de madame Tall mi propriétaire u salon bi kër googu mu dugg def fa pendant trente minutes wax fa la muy wax ñëw ca ñëw ca atelier tailleuram yëkkati fa mille xaalis saag ba fees dell xaalis mu am ñu ko may ñu seddoo ko madame Tall li may wax xam nga ko koo ëpp li bokk mënoo koo jëw. am na kër yoo xamante ne boo leen neex aji xamu fa xale bu tuuti bu am trois ans su fa aji duggee dañuy daw kott ko ni ko aji na nga def donc ne nous parlez pas de du complot. nous connaissons aji koo xam ki mu xam ka ko xam ak ka ko boole ka ko xam ngeen boole xamante Sénégal brassage la xam na nu xam xaaj aji ñoo xamante ne danoo jege ni deret bu baax mais mu jugee mu jugee foofu ñëw foofu assemblée nationale <coughs> excusez ci lever immunité siwal PV bi moom waaw ah, parlementaire bu Ousmane Sonko ba tey de bokk na ci ñee coow kii waaw naka ngeen ko apprécier par rapport ak yéen ci biir assemblée nationale i biir assemblée nationale bi nga xam ne war nañoo lever immunité parlementaire am coow lu bari amoon na fa mais ñun li ñu njëkk am comme renseignement mhm. daf ñu doy mooy euh, comme ni ñu ko waxee ci conférence de presse yi euh, ñun dañuy am ndigalan ah, damay damay wax foofu tamit damay mettre damay ubbi ay parenthèse après continuer sur le débat mhm. parce que ñun dañu am kilifa nekk ci parti bu tudd parti démocratique sénégalais nekk ci benn coalition boo xamante ni moo ñu gañeel ñu am 19 députés à l'Assemblée nationale ñu mhm. tuddee suñu groupe parlementaire liberté et démocratie président Cheikh Mbacke nekk ca bopp ba jiite ñu président Pape Diop président Mouhamadou Lamine Diallo Tekki président Mamadou Diop Decroix mais ñii ñëpp boo leen dee xool le commandant en chef mooy ki nga xamante ne mooy président groupe parlementaire bi Ablaye wadd mooy soo commandant en chef. du dëgg. ba coow la ñëwee assemblée nationale munoon nañ ci maandu wala ñu noppi ci. Mm. wala leneen mais dañu am kilifa. fa di xeex injustice ba fii ñu toog muy la président lay Wade ma koy jot jottali ngërëmam ndax barki dem bu may photo bi ngeen di génne bi ma ñëwee toog ci kanamu sama xarit sama mboq ajaratu ay Aïssatou Sabara euh, président Ousmane Sonko daf ko sant ba sëgg ndax jàppale ak nu mu gisee ouverture bi président Ablaye Wade am président Ablaye Wade daf ne takk leen seeni daal te défendre ko. ah bon ñu indi waaw waaw. kon yéen bii lii na mu ko ca xalifa rëbolot na mu ko waxee woon xalifa rëbolot xalifa keroog bi ñuy jàpp Karim dinaa ci jaaral sa wax ko xalifa Sall moo ngi nii di ma dégg c'est un frère mais dafa ne laissons la justice faire son travail am de arrière leen bande bi léegi vaar daa xew. mais bi ñu jàppee xalifa Sall président ba affaire ba ñëwee foofu dafa ne takk leen seen i dàll ngeen seen i écharpe ngeen défendre ko ñëpp àndandoo mais xalifa ba muy wax loolu est-ce que c'était c'était pas de bonne ah guerre. ah ben oui c'était de Mais quand il était dans les difficultés, c'est les frères et les sœurs de Karim Wade qui l'ont défendu avec becs et ongles. donc moo tax fu indi bi di suusee bii côté. ah yéen kan yéen a nekk ci digg bi yéen mënu leen voté jëm ci. mais en tout cas ñun nous sommes pour le défendre bi mu ñëwee assemblée nationale nag. ñun président Ablaye Wade jox ñu ndiggal nii nañ ko nañ ci jàpp le can notre candidat le frère Karim Meïssa Wade bind jox ñu ndigal ni nañ ci jàpp ñu ñëw jàpp ci nag ak bu sedd. ndax man kat jàpp bii ñu ma ci jàppaloo sama xol daf cee gën a sedd ndax kiñ may jàppaloo moom yàlla dafa def ni muy sama nitu bopp ma bëggal ko sama bopp mu bëgg ma te affection bi keroog ba mu keroog ba ñu ma fekkee sama kër agressé ma moo fa njëkk a ñëw egsi fa ni ma ma ni ko Karim jëlal na ma avoca wax na lii mu ne ma je te donne un autre avocat maam jaare yow dañ laa war a protéger ndax àdduna bee la bëgg dajal jëlal sama avoca boo lekk avoca Karim ñu defendre la kon kooku ku ma bëgg la yaa ngi dégg nit bisam rek lañ koy doyee Bijou Ngoné mhm. gis nga nit ku baax bu la lebalee teraanga bisam jot te fayoo ko ko buy limi noonam na la ca boole waaw ah, dëgg la looloo tax ma taxawu waaye xam nga man baax a baax baax contre vote euh, ndax vote bi teguwul ci yoon ndax bu ñu joxee plainte boo bu fekkente ni procureur papam dafa gaañu tey mm. mu xëy suba teel Mamadou Seck saa yi ma waxee dinaa ko jaale waale ndeysaan génn na sax ci dossier bi ndax dossier bi dafa tàng xale yu lakke dégg moom loolu moom duma la ci mere tu as bien fait monsieur le procureur tu bien fait ndax dossier bi c'est vide moom papam dafa génn àdduna mu xëy suba teel dem di denc papam kooku naka la mu ne bind ah ministre bi bind président ministre ba bind président dafa gaaw daal yow dañ la ni enquêtal enquêtal ma ci Ndeye Khady Ndiaye ci euh, proxénétisme diffusion de fausses images nangam nangam yow mii sa bécco yi ngay jaay booy boo nga jéem koo protéger ndax léegi ñu ne la diffusion de fausses images dëkk bi neexul te ñun ay immigré la yaa ngi dégg. <laughs> Sophie bokk jàppal ma jàpp lii lii nga ma koy seetale mais enquetal ma aussi sur X X n'est pas Ousmane Sonko X peut être celui qui est nommé dans le dossier. X mën naa nekk kooku. X X mën naa nekk ki ko indi woon ci oto bi. X mën naa nekk ki doon bindi plainte bi. x mën naa nekk ñi toogoon biñ doon bindi plainte bi x mën naa nekk ñett ñi nekkoon ci oto bi taxaw ci buntu kër gi di ko xaar donc doo xëy suba teel rek yónnee yónnee sa lettre dinañ ma lever l'immunité parlementaire Ousmane Sonko gis nga l'immunité parlementaire dañ ko war a dañoo dem ba war ko désacraliser te dañ koo war a sacraliser. Mhm. ndax lu am solo la ci ab parlement parlementaire. ndax nit boo xamante ne yow yaa ko fal au suffrage universel xanaa moom immunité parlementaire amul ci président de la république <coughs> kon ba nëga ni ma woote ñu woote ko ndax ñeenti juróom-ñeenti doomu aadama yi wala fukk ak ñett yi faatu ci dëkk bi ñu koy lijjanti parce que nul n'est plus responsable que le président Macky Sall de ce qui se passe dans ce pays il devait parler d'alors quand nous avons fait l'alerte que ce truc là ne passera pas comme celui de Khalifa comme celui de Karim parce que ce pays nag. il a parlé mais il l'a fait tardivement. waaw il l'a fait tardivement. Okay, man sur Facebook ku ma xam-xam ni j'ai fait appel à lui par les mots douces j'ai grondé j'ai wax naa lu ne wax naa ko maanaam façon bu ne wax nga ko mais moom bala moo wax rek euh, mu taar te loolu kenn ko yore. mais yabaloon nañ suñu ministre de l'intérieur Antoine. et puis ñu yabal bari na sax ak ak président euh, Idrissa Seck. ñun ñooñu soxlawul leen. <laughs> ñooñu ñun foog de la république moom itam génn na wax. waaw kooku kooku il a bien parlé xam nga kooku kooku kàddoom kooku euh, ABC. Mm-hmm. kàddoom dafa am lu muy valoir. Mm-hmm. gis nga nitu kàddu. Mm-hmm. nit ku yàgg ci appareil gouvernemental. bu waxee rek nga xam ko man mii sax damay waxi toj toj ndax yàgguma ci appareil gouvernemental. mais ABC amul da ngay waxi de yow toj toj kese ngay wax. waaw baax na ba tey <laughs> ñi ngi may déglu. Euh, ki nga xamante ni mooy ABC. du def lu dul du ma def lu dul gërëm ko gis nga bu njëkkoon a génn don bi changé xam nga lu tax bu njëkkoon a génn don bi changé c'est quelqu'un qui a le verbe facile mm-hmm. il est éloquent éduqué discipliné correct parlant et la simplicité et tubaab di wax la simplicité se lit dans l'art xool ko chemise bi mu génne ñee ñëw di ma xojal ay veste yoo xamante ne bu ma ci gis rek ba man italien laa man veste rek laa xam man veste boo xamante ni sa veste nga sa karawaata nga weng dugg ci sa côté nga def benn chemise ñu ñawale la ko kolobaan ah, te doo ko jox sax ñi nga xamante ne ñoo ñoo ko ñoo ko war a ñëw coupeur yu mag yi tailleur yi mel ni moo Gueye héritage da nga koy jox ah ay ay da ngay dem jënd ci fa jaay bi ñu paaseel la ko nga jox ko ci jaay yi eh, sama teraanga day tàmbale ci Mame Diarra ay terroriste Mame Diarra ci loolu nga wax noonu dama la ci may héritage dala ci may bon cent cinquante mille zoom papi eh, waa tam eh. héritage tam baax na eh, de zoom <laughs> héritage tam mi ngi defar affaire bi zoom lii cent cinquante mille bon bi jëlal li bon bu cent cinquante mille laa lay fëgg dégg li waaw héritage couture moo la ko may costume bi na ko yóbbu foofu ñu koy ñawal na ko ñëw yi ko yóbbu ñu koy ñawal <laughs> ci héritage sa yóbbu sa costume bi fii ñu la koy ñawal <laughs> héritage na ko yóbbu ci héritage xam nga mam jaar nga ñëw taxaw jërë boobu yaa yow def nga sa def nga sa mburoog soow bu nu aaya bu nu xutba tàmm nañ ko yooyu namatuñ ko gis nga benn chanson bu yàggee day xat ci yaramu nit ñi kenn dootu ko antan wala min kaana lay laay kaana laaw la xoowa yooyu day danoo seesoon bu nu aayaat ndax yow aaya nañu aay moom aaya nañu sama xarit la nag président waaye aaya ngañu